mbokk internet yi dalee nag jàmm kilifa bu mouvement Y'en mel na ni nag léegi ay mbiram leer moom euh, mii di kilifa ginnaaw liberté provisoire bu Simon ak Thierno Amadou Diallo kilifa am na lu bes ci dossier bi euh, ndax na ginnaaw Simon Kouka rappeur bi euh, di Landing Bisane Seck ñu gën ko xam ci kilifa daanaka nag mën na espérer ak liberté provisoire ndax dossier bi daal dinay nag jóge bureau bu procureur dem ca cabinet cabinet nak bu magistrat instructeur Billet moo tax nag bu ñu sukkandikoo ci journal Les Échos juge d' instruction bi dina daal di nag rendre ordonnance bi euh, ci ni mu gën a euh, gaawee ngir nag euh, kilifa daal di nag am ab nag réponse ci demande de liberté provisoire bi lee ak ginnaaw libération bu Thierno Amadou Diallo moom kilifa daanaka nag mën na daal di nag nourrir espoir retrouver li nga xam ne moom mooy de la liberté ñu fàttali ne demande de liberté provisoire boobu de nag daanaka mooy deuxième bi nga xam ne déposé na ko nag ci table euh, juge bi ginnaaw première bi nga xamante ni chambre euh, d'accusation bi daf ko daal di nag euh, lankal juge bi itam daal di koy nag lanke ndax nag depuis le 16 septembre moom kilifa ma nga ca prison ngir nag ab affaire présumée de trafic de migrants guñ koy daal di nag toppee mu nekkoon nag benn mbir moo xamante ni daanaka trafic bi mu ngi nekkoon ci diggante wala boog ab trafic présumé la sax ndax enquête bi mi ngi en cours ba tey jii nag kenn condamné wu ko pour le trafic de migrants ou le trafic de passeports euh, gi nga xamante ni moo nekk ci dossier bi la waaye nag mbir mi mi ngi en cours jàppale ni moom kilifa euh, bu mouvement Y'en a marre daanaka nag Thierno Amadou Diallo démb dégg ngeen accusation ak yenn ci révélation yu mu daan di def jàpp ne rek ni li ñuy wax lépp nag sénégalais euh, di ko spéculer un peu partout dara amu si ndax moom mi nag musul daal di euh, nag def li nga xamante ni moom mooy nag li kilifa wax ne ñoom ñaar ay xarit lañu plus de 20 ans d'amitié dara am amu ci ci amu amadou diallo itam dal si yok ne nak ki nga xamne moy kilifa li tax ma dal di koy nak film à son insu te nak luñu ñu la manax mom moom te il fallait que ñu dal di koy naka leeral waye nak eh, fu mu toll ni mom si mo kuka nak la ko tax am liberté provisoire bokku na ci nak eh, feebaram bi nga xamne nak ay sekel d'une AVC la dal di nak eh, d'un AVC mom la dal di nak am tax ñu dal di koy nak may ab bay ndek diku di liberté provisoire provisoire ginnaaw nag jafe-jafe wér-gu-yaram goo xam ne bu tar gu mu amoon ca prison ba ah, moom mi di Simon ah, Kouka daanaka ah, nag kilifa la ñëpp doon espérer nag ne bu ñu bàyyee ki nga xamante ni mooy Thierno Amadou Diallo kilifa moo caa topp ndax nag Thierno Amadou Diallo mi moom lañ koy daal di nag toppee complicité waaye kilifa ci boppam moo ko porté woon plainte ngir nag mu ndax li nga xam ne loolee mooy collecte illicite de données gi mu daal di def mooy filmer ko ci lu mu yëgul dara moo tax jamono ji nga xamante ni moom la ñuy daal di nag wax kilifa bu mouvement Y'en a marre daanaka nag mën nañu espérer ne euh, xëy na fi léegi fan dinañ ko bàyyi mu génn daal di nag euh, dem ñibbiti si ab njabootam euh, ndax nag daanaka le 16 septembre ba tey lañu ko daal di nag téye ma nga ca prison ba jamono ji nag ngir ab mandat de dépôt gu ñu ko daal di nag teg ginnaaw boobu leen nag vidéo bu Thierno Amadou Diallo daal di nag jëloon naam sax moom Thierno Amadou Diallo Diallo jàpp na ne nag boobule euh, dossier daanaka moom nekkul moom moo daal di publier euh, vidéo yooyu dafa daal di fuité ci téléphone am waaye nag la tax mu filmer ko moo ko xam. Sénégal la bokk abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification Sénégal la bokk la chaîne des grandes valeurs.